Euh, bu ko defee bijou ñëw ci octobre rose. alors ruban rose bi rappeler juste que c'est pour soutenir lutte contre euh, cancer du sein bi nga xamante ni moo gën a sonal jigéen yi actuellement. Mhm. ci àdduna bi et monde bi yëpp ñoom ñoo koy euh, célébrer. Mhm. d'ailleurs en France ci Paris tour Eiffel bi dañ ko def en rose. Mhm. Londres am na benn défilé boo xam ne ñëpp rose dañuy sol et puis place boo xam ne biir France aussi dañ génne ay parapluie rose pour inciter jigéen yi ñu dem def dépistage avant muy trop tard parce que cancer du sein c'est vrai que am na ñu ciy wér bu fekkee teel nga def dépistage dépistage mais actuellement bu ñu xoolee ay chiffres OMS 521 000 de femmes lay rey par euh, par an ci biir monde bi donc c'est beaucoup loolu moo tax ñu def octobre rose. Euh, ñu ci bëri di def dépistage yi gratuitement ñeneen ñi di ko wàññi comme au Sénégal actuellement dañ koy wàññi ba mille au lieu de mille euh, vidéo bi ñu leen di bëgg a nag benn vidéo jigéen boo xamante ne la dafa am cancer et puis feebar oui tontongaar <laughs> bëggul gis feebar mais moom euh, bi mu amee feebar bi li may wax tout à l'heure rek cancer ñu bëri dañ ko ragal ba tax na parfois dañ koy am nit yi daw la mhm. parce que je pense la après dina ma dina dina ma rey euh, mais euh, Zeyna maman amoon na ko sa yaay amoon na ko euh, ça va maintenant c'est juste pour dire aux gens que nit mën na ci wér ah moom amoon na ko ngeen jaaxle woon et tout ça et pourtant wér na ci. maman waaw. c'est vrai Pape Cheikh wér na si sant yàlla parce que métti woon na torop. Uh-huh. parce que sama papa dafa décédé. 3 uh-huh. octobre 2008. Uh-huh. ñu teg si deux mois même pas ñu découvrir ne sama yaay dafa am cancer. elle avait 42 ans. mu nekk une période très difficile ma nekk taaw sama ay rekk nekk fii xalaat dina jógam du jóg mhm. mu metti torop nag opération yu dul jeex hôpital bu dul jeex finalement ñu dagg benn ween bi mais sant parce que tey jii mi ngi sant bu baax même bu fekkee ne dafay euh, mu ngi dem tout le temps hôpital di contrôler boppam mhm. sant yàlla alors képp koo xamante ne am nga cancer bul découragé et puis surtout la famille quoi parce que source de motivation wax ne damay xeex ndax ñii dafa am solo ci ko am cancer te loolu su fekkee ne sa ay mbokk daw nañ la rek da nga koy perdre et psychologiquement il faut être très fort pour que nga xeex ak feebar boobu kon bu leen découragé en continuer leen xeex e surtout les filles ak ku mu mën ci doon détecter cancer Pape Cheikh dafa yomb xam ko yomb na après ça ay règles dafa saay autopalpitation di nga gis ne yenn saay bu fekkee ne yaa ngi ci yoon am feebar di nga gis ay nodule soo gisee donju rek ak nu mu ndaw ndaw ndaw demal hôpital nga dem def su fekkee amagoo doom da ngay def échographie mammaire su fekkee am nga doom nga def sa mammographie et très tôt mun nañ ko déceler mun nañ ko topp faj ko ba mu weer parce que cancer su demee ba commencé metti rek soo moytuwul jege nga phase terminale très bien très bien et bu ñu dindee benn ween bi yàqul dara ci taar bi en plus léegi voilà. si chirurgie esthétique tu peux refaire beneen tu peux tu peux refaire tes sans problème dagg ween bi du dara santé bi Pape Cheikh ak jege ñi nga xamante ne ñoo la soxla ci seen dund moo gën a important loo gis. merci pour ce donc pour wax ne dagg ween bi du dara. Euh. Angelina Jolie ci boppam dafa dem daggal boppam ñaari weenam yépp ah, parce que yaayam dafa amoon cancer donc ñu ne ko euh, am nga gène bi sa yaram donc peut-être di nga ko am. avant mu koy am la dem dagg ñaar yépp defar ay weenam. donc dagg ween bi c'est rien du tout et Zeyna ni mu ko waxee tout à l'heure bi moo ci gën am importance mm-hmm. donc soutien boobu dafa am benn jigéen bu ko am ba mu doy Gerdy Makena lañ koy tuddee Afrique du Sud la dëkk ñu xool vidéo bi pour ngeen gis ay xaritam lan lañu def pour soutenir ko ci lutte contre le cancer. voilà. Euh... alors photo bi ngeen gis mhm. benn séance de photo la yéen a ngi gis jigéen yëpp pour pourquoi mhm. ñu watu parce que cancer sooy def euh, chimio bi mhm. tu es de te raser le le crâne da ngay wat sa bopp donc ñoom dañu ñëwoon pour soutenir ko def benn séance de photo pour wan ko ni euh, du ci maladie bi rek nga war a concentré bi moo leen ne on va aller plus loin yéen ñëpp wat leen seen bopp comme ça ah. photo bi boo ko xoolee doo xam ku feebar am nañu photo bi à l'écran doo xam kan moo feebar donc bi journaliste yëpp dañ ko reprendre à travers le monde bi lañu solidarité. solidarité bu mel ni <laughs> kii yaa na naa watu après dinaa watu pour soutenir le bu mel ni je pense que boo feebaree ba ñu defaral la ko. finalement t'oublies la maladie tu sais que les gens sont là pour toi dem ba watu pour ndiroo ak yow pour soutenir la wan la que ne on lutte avec toi contre ta maladie. waaw motivation la te dagg karaw jigéen ak wat karawam nga xamante ne c'est très li waa jigéen nu muy bëggee karaw dem ba wat ko pour soutenir la donc même soutien bi laa bëggoon waa Sénégal yëpp kenn ku am cancer ñu aidé ko noonu parce que 521 000 personnes lay rey par année chaque année ci monde bi donc ku ko nañ la aidé jàppale la et euh, surtout euh, autorités yi ñu jéem a xool nu ñuy subventionner traitement bi parce que c'est très très cher. super euh, et puis internautes yi euh, ñoom ñëpp ñu ngi doon proposer ay ay slogan ci hashtag bi ñuy sànni tey ji ci suba Zeyna. qu'est-ce qu'ils disent Euh, Pape Cheikh hashtag bi ñu lancé woon aux euh, internautes nos aminotes c' était que ñu wax ñu un slogan boo xamante ne moom mooy accompagner octobre rose mois d' octobre nga xamante ne dañ ko jagleel lutte contre le cancer chez les femmes alors euh, Adjaratou Evich Thiero nee na pour un monde meilleur je lutte contre le cancer chez la femme mm-hmm. Mati Thiam daal di ne autopalpitation après les règles meilleur conseil contre le cancer mm-hmm. et je finis non avant may pare euh, Kaba Diaw nee na pour lutter contre le cancer je m'engage je suis prête à tout mhm. euh, Soho Dabash Baby moom laay mujjee nee na lutter contre le cancer chez la femme mon but Pape Cheikh oui y a que des au fait am na ay góor mais message femmes yi ñoom ñoo gën a poignant parce que tu sens que si xol lay jógee. Mhm. et puis voilà elles se sentent concernées effectivement. sax la association bi di wax parce que maa ngi gis ni ay jigéen ñoom ñoo ko bokk ñu ngi bind nous sommes toutes concernées. voilà ci ci ci feebar bi. des merci aux internautes pour seen ay slogan ñu ngi lay gërëm yow tamit. merci ah tu deviens triste pourquoi. mais non je suis pas triste je ne sens pas bien ces jours-ci. c'est vrai euh, voilà quoi. Ah,